jëfal universel yi fi teew jëwriñ yi yi nga xam ni ñoo waral wote bi maa ngi maa ngi leen di bëggee maa ngi leen di sant bu baax maa ngi leen di sant cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem maa ngi leen di sant lool xam naa awma sax kàllaama bi li ma bëgg a wax jëme ci yéen nga xam ni bi xew xew ginnaaw xew-xew bi mooy woote bu njëkk bi ma woote nga xam ne bi may woote dama tàllal loxo ñëpp xam naa sax ñu ñëwul dañoo amagul jot rek wala boog ñu ne ci ay yitte rek waaye jàppuma ma ni sax dañoo bañ a wuy si déedéet man laa woo aw ma ci xejj ak seen mbooloo mi mbooloo mi day mbooloom sëriñ bi te duma fekk lu yaatu ma koy xatal te moom day ñëpp la xajoo ak yërëm ñëpp cëy ci daj cëy lim ci daj guddeeg bëccëg amatuloon jot àddunaam yëpp def na ko ci mbooloo ngir gindi leen loola nag du nu ñëw mu mel ni dañoo toogee ci barabam bi di ko xatal duñ ko def mukk ñu ko defee day duñu jig mukk maa ngi tàllal loxo ñëpp ñi ñëwul sax dinaa leen wuti danaa danaa topp ci ñoom ñi ñëw am na ñu taw féex waaye ñi ñëwul sax nañu xam ne dinaa wuti dinaa leen topp duma leen ba mukk waaw ndax loolu rek a ma war day mel ni waruma amee man day awma kenn xaar ma ku ma xam-xam ni du jàppal kenn dara jàppuma dara te it merewuma kenn na ma ñëpp dimbali nu ànd ku ñëw baax na ku ñëwul dimbali leen ma nan ko toppatoo fu mu mën a ne nanu wax ak moom bu jaree ñu yelwaan ko sax nan ko yelwaan bu jaree ma raamal ko sax ma raamal bu jaree ma ñaan ko ma ñaan ko lu mu laaj man na ko def ñu bëgg rek nu ànd liggéeyal sëriñ bi ndax moom rek mooy sunu yitte nun de newunu fi di wane sunu bopp jangalu ñu lool ak taalu bi rek lañu jangal sëriñ saliw rek lañu ñu jinkal xamuñu leneen mënuñ ko kooj déedéet sëriñ saliw da jaar ak mom foofu li ci ëpp sëriñ bi daf ñoo taw nu ànd ñu xam ci lu bari fa nu ànde sax nag moom xamuñu ko te deet mënuma lijjanti fanu ànde waaye nag am na loo xam ni nag fekke nan ko sëriñ bi dimbali nañu nu teewe ko kon danañ ko mën a wax loolu expérience la bu ñu sëriñ Touba dimbali sunu chance la ñun ñoo am tawféexu ñu koy tudd dina tudd ah bu ñu nee sëñ Saal Gueule Tapée ni moom sëñ Béthio bu ñu nee Seydina Serigne Saliou ni moom sëñ Béthio waaw ah loolu loolu suñu taw féexe sëriñ benn ko dimbalee c'est un acquis lu lu lu lu am la ba noppi lu ñuy xëccoo déedéet xëccoo wu ñoo kenn na leer du lu ñuy xëccoo mbir mi day mbirum sëriñ Touba. maa ngi yëkkati nuyoo bu tedd nuyoo bu moom laa waroon a jëkke sax maa ngi koy tuub sëñ Mountakha Mbacké xalif général kullu murid moom laa waroon a ubbee samay kàddu Mbacké maa ngi koy tuubal loolu de li ñuy wax émotion xol bu fees xel mu bari lu muy rabat moo ma indil ma mu mu mel ni dama mel ni lu fàtte te fàttewu ma ndax foofu laa doon jëm maa ngi koy màggal ci turu cantaakoon yëpp maa ngi koy sant ci turu cantaakoon yëpp ak fu ab cantaakoon mën a ne maa ngi joyal ak cantam ci Serigne Mountakha Mbacké tey ñaan mu yàgg fi tëwër bu loolu weesoo maa ngi jaajëfal tey sant tey màggal waa kër Serigne Saliou Mbacke gépp ci njiitul Serigne Cheikh Mbacke Serigne Saliou maa ngi ñaan mu yàgg fi tëwër moom day wane na ni mooy doomi sëriñ Saliou ca yërmande ja ca mbaax ga bi ma teewee moom ak maag sama rakk yi ci kanamam daa mel ni musuñ faa jóg looloo ma jëkk a yéem na mu defee ak ñun yaatal bam ñu yaatal dugal ñu ca biiru boppam ba nanguwu ñoo boole mbooloo mi sax ber ñu wax ak ñun kàddu yu tedd yam wax ak ñun delloo siwaat ñu ci ak taalu loolu loolu wax dëgg yàlla sant nañ ko ci maa ngi yëkkati ci turu njaboot bi ci turu cantaakoon yépp maa ngi koy jaajëfal te di ko sant tey ñaan sëriñ Touba bàyyi ko fi ba li mu naal mu yeggale ko du ma wax ba yeggalit te santuma sëriñ Bas Abdou Khadre mbakke sëriñ Bas wala ak sëriñ Béthio loolu ñëpp xam nañ fekk si na ko fu ne fii ma toog nii gane si na ko fi keroog nganam nga lu ne sëñ Béthio def na ko keroog ci seen kanam ay ay ab ay seere ngeen ci lu ne rey na ko ngir terale ko sëñ bas wax ju baax ju ne nga ju ne seq na ko ak sëriñ bas sëriñ bas doxe ci mbiram mi doxin woo xam ni daa laaj ñu taxaw sant ko gërëm ko màggal ko ñaanal ko bi sëriñ bi defee sekkereem bi taxawaayam ba dafa mat sëkk moo moo moo yombal lu bari lu mënoon a jafe waaye tedd nga am nga ndeysaan mu fexe ba dimbali nu doxale ak dig sunu diggante ak sëriñ Cheikh ak sëriñ Bas ak sëriñ euh, Muntaxa dox fa doxin woo xam ni kéemaan la ñu ngi ko ci sant bu baax moom day sëriñ ba day fa mu tëdd dégg na ci moom maa ngi sant waa Touba gépp ndax Touba dañoo teerule dañoo teerule sëriñ bi ni ñu waa Touba def génn ci mbedd yi jigéen yi génn góor génn ñu yor seen poti café ba waxtu ndogu jotee dañu kar dañu ko jox génne seen njaboot ga ku sant Mbàkke teew nga fa Baay Faal yi sikkar sa ñooñu mënuma leen a ñàkk tudd mënuma leen a ñàkk sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di gërëm ci turu cantaakoon yëpp sëñ Xaadim maa ngi lay sant bu baax ndax yow de da ngaa doxee doxin woo xam ni mënoon naa mënoon naa mënoon mënoon ngaa xajamal yëpp yi waaw ah, amoon na nooy def wax dëgg yàlla euh, euh, dana dana diis lu Sëriñ Tuubaa dogal la sax waaye nag da ko yombal yombal nga ko lool ndax sa taxawaay ci sama wet maa ngi seereel bokk cantaakoon yëpp ni leen moom day sant naa ko sant naa ko te bu ma ko santee mooy sama rakk yu yëpp muy góor di jigéen ma mënoon ngeen maa jiital ba noppi fakkatal ma defu leen ko yéen yéenay sama doole yéen a tax ma ñime ci li ma doon def ndax xam ngeen ni aw ma fitu di jël sañ Béthio di ko yóbbu Touba man rek loolu ñimewuma ko ay dogal la sëriñ Saliou ko dogal ci moom mu dem tëdd ca wetam du man ku yaakaar ni samay pexe la xamoo dara war ngeen a xam ni sama waajur wa ak mbaaxam nga tedd nga am nga ak nam ñu bëggee ak nam ñu taxawoo ak fi mu jaar ak ñun di nu bàyyee ndigal ma xam ko samay rakk xam ko may fëtt ndigal loolu di ko tey xam ngeen ni loolu ñemewuma ko te ma nga may dégg bu ko neexoon fii ma toog du fi toog mukk ci àddina bu ko bëgguloon maa ngi giñ ci Serigne Touba ni fi toog kon maa koy jiitu bu yàgg waaye nag deful loolu déedéet nangu na ay dogal kookoo xam Serigne Touba kookoo xam lu dig taalube maa ngi sànq Pam Ngañ Njaay bu TFM dafa ñëw doon ma jaale si ñu tegal ma séquence bi nga xam ni faram fàcce bi ko moom bi nga xam ni moom la ko Pam nga Njaay euh, invité woon mu ciy wax ci xalif général des Mourides di wax ni képp kuy xalif général des Mourides yaay Serigne Touba ndigal loo joxe dañ ko war a jëfe ku yàlla dimbali. di nga xam ni xalif général day murid ndigal lu mu joxe dañ ko war a jëfee ndax ndigalul sëriñ Touba mu koy wax moom sëñ Béthio waaw bu loolu loolu lépp sax moo murid bu wàcc liggéeyal sëriñ Touba ba am ngërëmam ñu ne la dañ lay yóbbu Touba moo ana coow li ah moo loolu coow da ci am bu dee am murid nga bu gëm sëriñ Touba bu ko dëggal non soyons sérieux gaañi am na loo xam ni duñu ko def jomb nañ ko bu dul dara dañ koy tudd di ñu tudd te àddina daf ñu ko jaralul sëriñ Muntaxa moo joxe ndigalam la sëriñ Tuubaa di ñu am ndimbalul nangu ndigalam la naka ni waroon naa fekk nu def leneen maara daytaal kon xaw ma fuñ jëm waaye sëriñ bee dul juum ba mu ko waxee danoo nangu jëfe ndigalam la moo taxit raw nañu raw nañu te kenn mënu ci dara dana nu dem ndax sëriñ Touba nangul nañu bokki taalibe yi maa ngi leen di sant maa ngi leen di sant cant goo xam ni cant gu wér la te dana nu ànd liggéeyal ko ndax man kat xamuma leneen Sëriñ Tubaa dimbali na ma ba ba ma juddoo ba nëgën maa ngi ci wetam musuma jóg ci wetam maa ngi ci wetam maag samay rakk xamuñu leneen ñun yëfi gone yi nit ñiy def sax jotuñ cee jaar ndax ànd bu nu ànd ak moom te mu tënoo baax ak sunu bopp ànd ak ñun guddi ak bëccëg di ñu jëfloo ci sëriñ bi di dem di dikk bu nuy dem muy ànd ak ñun bu ñu ñëwee di ànd ak moom di dellu mu nuy jëfloo ci moom te di nu ko bëgguloo ci loolu lanu nu gimmee ci loolu la yaru yaru xamanul leneen jamono nak dafa jaxasoo waye buñu buñu buñu buñu buñu jaxasse dedet fi ma tok man Serigne Saliou ma fi tek te kat man day musuma wadjal lu mel nii déedéet daan naa xalaat lu ne bamou dess bis dina tok ñu nan ma yaay sa khalifa bàyyi dedet lolu moom musuma ko calculer wa je ne m'étais pas préparé à ça. kon ay dogal la ci sama jëmm ji duma ko bañ nag danaa ko àndandoo ak yéen jëm yi ma fi gis nga xam ni xamuñu lu moom yéen ku leen won leneen lu dul sëñ Béthio sax ngeen won ko ginnaaw am ngeen fulla ju toll nii du ngeen ay dof du ngeen ay jayin ñi ci ëpp ay ay jàngkat lañ jàng ngeen alxuraan jàng ngeen addis du ngeen ñu ñu mën a nax du ngeen ñu ñu mën a fëkk ku jàpp ni ay pexe manees naa ko lal di leen fëkk juum na ci dëgg rek lañuy ñuy ànd ak yéen mel na ni tey mooy sama woote bu jëkk ak yéen may ñaan ñu yàgg koo woote ñu yàgg koo daje waaye na ngeen xam ni man jëwriñ laa rek ci tool bi nanu àndandoo tey liggéeyal ko te sàkku ngërëmam ngërëm nag du doy am naa ngërëm dëgg la moo ma ne woon ngërëm loolee la Serigne Saliou doon sàkkul ci man ni la bu ma la gërëmee rek li ma bëgg ci ma yow dinaa ko am ngërëm loolu na nga xam ne bis ni ki tey agsi na ba tax na def naa ci yow loolu ñuy wax ak ceex mooy ca ceexam nga seexam ya eh, li nga xam ni ci la ñu dëgmal muy nag liggéey bi ndax fi ne dañoo yëfi yi la moom moo ko daan wax màggal gi dafa jub te kenn ku ne xam na lim ci daan def màggal gi day yëfi sëriñ Touba mooy cant gi mooy dëgg-dëggi cant gi màggal gi yéen xam ngeen li ma leen di wax te sëriñ bi yóbbu woon ko foo xam ni. kenn ku ci ne xam nga muy warteef ci ñun ñu war a jóg dox jëm ci nag te def ci pëstéef ndax yóbbu woon na ko foo xam ne day du neex a dab de ah kooku góor Sëriñ Tubaa defal na ko lu mu dootul defal góor mm. tegoon na tànkam koo xam ni ci màggal gi joti fa du yomb de waaye nag bu mu nu tax a yaafus lu Serigne Touba maye rek des denc na lu ko yi sunu borom la nan dox jëm ci jëwriñ ñi fi teew nga xam ni dañoo ànd ak mbooloo mi te daan ko jëf di jëm ca moom sëriñ Ibrahima Kouaté mi ñëpp xam ci ak maandoom ci ak sellalam digganteem ak sëriñ bi ànd ak moom boobaak léegi léegi mu mat fanweeri jur ci njabootam gi te kenn ku ci ne ci ñun xam sa probité morale muy jëmm jur jëmm ju jëmm ju baax nga xam ne moom la sëriñ bi daan dénk jëfi màggal bi moom moo ko ko daan doxalal moom moom mii laa ko bëgg a dénk Bima, Bima bi ma ko ko waxee ndax ma ah seigne Sall wa yow day loo ma wax sañu ma cee teg baat waaye damaa defoon man fi da damay noppalu mané ko dedet yaangi dog di commencer son ndax yow duma dem mukk di la fi baax damay andandok yow banu tew ci kanam seigne Béthio nan ko liggéeyal rek yow lo rek nga xam xamoo lenen liggéeyal seigne Béthio rek nga xam mu nangul mako nima kon jàmp na nag fi mu ne nii ndax mënumaa ubbi ab compte boo xam ne ndax compte yi fi ne ay compte sëriñ bi lañ yooyu compte dañ koy tëj waaye nag yow am nga sañ-sañu ma ubbi compte ci sa ndigal bu ko defee nga yor signature bi ma yor signature bi ma ne ko déedéet benn signature lay doon yaa koy yor man soxlawuma boobu signature mu ne ma déedéet mënta ne ndax faaw une double signature ndax yaa yaay doon yaay doon kilifa gi daal di am na mu waxee ak man nag ba ba ba ma ba ma ni ko kon nangu naa ne ko kon nag compte boobu nañ ko ubbi bu ko defee mbooloo mi biir réew mi ak bitim réew ndax bitim réew bokki taalibe yaa ngi may woo jëmm ji ma jëkk woo bitim réew mi ngi tudd Issa Ndoye dëkk Pisa ci itali woo ma bi sëriñ bi defee sekkareem bi ci suba gi ni ma man day sëñ Sall ma ne ko waaw mu ne ma damaa yëg yónnee la àddiya maa ngi lay yónnee un million damaa bëggoon nga wax ma fu ma koy def ma ne ko danga koy jox jëwriñ Ibrahima Kouat fekk na sëñ Babacar Mbaye mii woo ma ci suba gi ni ma barab bi kat daal laaj nangam ak nangam ak nangam ak nangam ma ne ko kon maa ngi jóg dem ci banque bi yónnee la ko bi ma raccroché ak moom la ma jëwriñ Issa Ndoye woo man taxum muy numa ko sax nag bu ma dee wax dëgg fi ne ma jàkkaarloo nag moom duma ko xam déedéet mu ma dama lay yónnee àddiya un million ma ne ko ah, yow de borom tawféex nga ndax sëñ Babacar Mbaye laa raccroché mu may wax ay yëf yu ñu war a def ci barabu sëriñ bi sa un million yooyu addi yooyu sëñ la ci barab ba lañ koy def moom la noonu la noon la ko Ibrahima Koité jële yónneel ma ko jëwriñ Babacar Mbaye kon jëmm jooju boroom taw féex la mel na ni kenn jëkku koo jëf ca sëriñ bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon màggal gi loolu lépp damay wax rek waaye li nga xam ne mooy yitte ji dëgg-dëgg li ma ñor fi li may wax yépp ay détails la fi pour man ndax màggal gi ñu jub te war cee wane Pastef war cee rey sunu bopp bu ko matee moo ma tax di wax rikuwaay gars yi nañ leen ci nañ leen ci nañ leen ci nañ leen ci nañ leen ci def lu ñu mën ak lu ñu mënul ngir sëñ Béthio man de wóor na ma ni mu ngi may déglu te xam na ni looloo nekk ci sama xol te looloo nekk ci seen xol yi yéen ñii ba tax na maa ngi leen di ñaan nanu fabu ñi dikkagul dem leen leen jëli leen ñu ñëw nañ leen ànd jëf liggéeyub sëñ Béthio bi bokk na ci màggal ko bokk na ci ci bëgg ko bokk na ci dëgëral mbiram te loolu rekkoon war dëggal dëgëral mbirum sëñ Béthio rek nu wax ay dañ dañ dañ ci dañ barkeelu rek waaye moom mbiram sëriñ Tuubaa dëgëral na ko ba noppi li ma war rek laay wax doonuñ ci dara waaye nag li nu war mooy dox jëm ci xam-xam may nañu sëriñ bi loo ngàddi jëm ci moom mu ngàddi lu nuy ëpp jëm ci yow kon nag bokki taalibe yi maa maa ngi leen di sant gudd gàtt ñi ma woote ñu wuy si sant naa leen tey de amaat ngeen ngërëmul sëñ Béthio lu yees barke Serigne Touba maa ngi bëgg lool maa ngi nuyu nuyu bu tedd soxna Mboose mu ngi ci biir ne ci liggéey bi sunu waajur woowu nga xam ni ba mu dalee ànd ak sunu sunu sëriñ ba yàgg na lépp ci moom la doore maa ngi nuyu soxna Aïcha maa ngi koy màggal moom tamit moom moom moom moom tamit ndeysaan bay na waaram elle a rempli sa mission vis-à-vis du cheikh bu masaana feebar ñoo daan ànd man ak moom ñoo ko daan yóbbu ndeysaan bitim réew ñoo fa daan nekk ndeysaan mu bari ci positif lool soxna mboose yar yarnu yar yar bu rafet man ak samay mag ak samay rakk maa ngi màggal tey nuyu soxna soxna ayda maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di màggal maa ngi nuyu soxna Adja maa ngi nuyu soxna Batoor ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu màggal ñoom day sëriñ bi rek laa leen di xoolal

kenn ku ci ne di di xëcc di jëme mu mel ni da ngay xëcc di jëme fële waaye lépp benn la man wóor na ma nii ñépp danañ topp sama ginnaaw ñu liggéeyal waaw ndax loolu rek moo mën a am leneen mënul am fu waay mën a ne ndeysaan amoon na ci cantaakoon yoo xam ni niñ ma bëggee woon respecté ma ndeysaan am na ci ñoo xam ne ndeysaan damay bañ a tudd seen tur foo leen foo leen masaana fekk ndeysaan ñu ngi ci sama wet bi xew-xew bi amee bu yëngu-yëngu yi amee ndeysaan ñu am nañu def waaye maa ngi giñ ci sëriñ Serigne yu Mbacke bi ma yaakaar tey laa gën a am yërmande jëm ci ñoom tey laa leen gën a bëgg na ma leen jàppe tey jii laa leen gën a jàpp ndax sama wajur rek lañu bëgg kat coow li ñom ñom sëriñ bi rek lañu bëgg mo waral non yi ñu def biñu yexé aéroport koor bi wara ñëw mbolo mi bari kilifa am kilifa guma seug ni ma mi bari nañ ci biti té commencé nañu sanni ak di saga nit ñi ak di leen door li ñuy def moy dañ leen di disperser dañ leen di door ay lacrymogène wala ñu wala ñu duma leen ñu jóge foofu ma ne ko ëpp naa def dimbali ma ngir yàlla ba bu loolu am mukk buñ leen dóor buñ leen sànni lacrymogène buñ leen xas buñ leen saaga sa moom rek lañ bëgg ci loolu rek moo indi moo indi jafe-jafe yi waaye léppay jeex cofeel gi la rek dimbali leen ma buñ leen sànni lacrymogène buñ leen dóor buñ leen xas buñ leen saaga ndax boo ko bu ngeen ko defee di dama métti lool ndax njabootug sëriñ bi lañ mu daal di gestu di waaw yow daal yow daal ku baax nga rek yow daal yaa baax rek ma ne waaw waaye ñoom maa ngi nag ñoo ma yem rek ñun ñëpp njabootug sëriñ bi lañ dimbali leen ma rek lépp dana jeex ci jàmm waaye sëriñ bi def baatuñ lépp jeex ci jàmm waaw maa ngi sant bu baax defe naa li ma bëggoon a wax lépp wax naa ko maa ngi maa ngi nuyu sëñ Xaadim Ndiaye tasuuf miy doog di yegg si di wëlëre sëriñ bi di jëmm ju baax ndeysaan ba xew-xew bi amee ba léegi ndeysaan muy muy muy muy muy wootee ndeysaan sëñ Laat Jaxate imaam sunu imaam mi ngi fi toog taaral bis bi ñu ngi koy nuyu di ko màggal Come on, come on, come on. téléphone 00 221 33 898 53 09 77 506 85 74 78 123 86 56 Adresse email gmail.com